tas APR lu tax. pour cohésion nationale dañu war a tas APR. Hmm. parti ethnique la. ah bon ah mais APR discours ethnique dafa safoon trop. loolu c'est des faits. 1960 ak léegi ñaataat la. 64 ans. mbirum ethnie mosoo ko dégg ci politique. Hmm. am na wala amul. si pourtant bi APR ñëwee dégg nga ko. Mm-hmm. ñun Sénégal dañ mës a lijjanti diw nàngam la diw nàngam la diw nàngam la ñun xamu lu ñu xam. Mm-hmm. séeréer jaamu tukulóor tukulóor jaamu séeréer. Mm-hmm. séeréer nàngami joolaa joolaa nàngami diw. pourtant ñoom dañuy wax ne ñoom Pastef fi indi discours boobu ah. benn dëgg. muy muy affaire affaire waasoog affaire yooyu nee nañ ñoom Pastef fa ko fi indi. ñoo ko loolu am na avant Pastef di ñëw. ku dul képp ku discours jëm ci sect ci wàllum ethnie. waaw ah ci wàllum tarixa dama gëm ne dañ laa war a disiwul mm-hmm. man loolu laa gëm. ab parti bu ñu ko tuddee xel yëpp dellu ci benn communauté. waaw rek dañu war a disiwul parti boobu. bu ñu nee parti sàngam xel yëpp dem ci benn communauté dañu war a disiwul parti boobu man loolu laa ko d'accord euh, si Ousmane tamit bëggoon naa indemnisation bi nga xamante ni euh, le président de la république Bassirou Diomaye Faye wax na ko ah, ci ñi nga xamante ni tey ay victime la ñu euh, ci li fi xewoon ci mois de mars février sax la wax deux mille vingt et ba deux mille février deux mille vingt quatre loolu tamit ndax dina yomb déjà waaw dédommagé bi ndax dina yomb ñu indemniser leen Euh, ñoom tamit ñu ne justice la ñu bëgg ah que sax gën a gën a soxla ko sax indemnisation yeeg ñu mel noonu da jàpp nga ni eh, problème boobu tamit dina neex réglé puis li ci bu ñu waxee victime ñi ci ñàkk seen bakkat ñi ci gaañu ñi nga xamante ni am nañ ci perte nañ seen ay commerce dafa yaatu dafa yaatu est-ce que dinañu mën a euh, maanaam indemniser ñëpp ku nekk ñu delloo la li nga xamante ni ñàkk nañ ci buñ ko commencé ndax du jur coow. Euh, xam nga. affaire victime manifestation yi. Mhm. dafa complexe. si moom laay wax. mais lu mën a réglé wu la. Hmm. man dama gëm ni dañu war a dédommager victime yëpp ñuñ tëj di ñu rey ak ñi yàqule. léegi nag loolu boo ko defee rek consommé nga amnistie bi lu dëgg te boo consommé amnistie bi mënatoo def justice lu dëgg waaye mën nga def justice autrement xam nga nan da ngay tijji enquête ci arme yi ñu fi dugal. maanaam enquête bi du jëm ci manifestation yi de ak émeutes yi de da ngay tijji enquête jëmee ko ci armement yi ñu dugal ci réew mi xam nga ñun ñëpp nangu nañu réew mi gis nañ ay civil yor fi ay armes à standard militaire yoo xam ne duul lu ñuy jaay ci ay magasin armurerie yi duul luy taxawaalu du ay revolver du ay du ay nu tudd du ay neuf millimètres et autres du ay mag na mag yooyu ay arme de guerre la pour nit am ko yombut mais tijjal enquête ci armes boo tijjee enquête ci armes mën nga sanctionné xola ña defoon dégâts ca manifestation yi sans pour autant leve de loi d'amnistie bi moo tax ma gëm ne chemin yi président mën a jaar pour régler problème mu émeutes yi bëri na mën na bañ a lever loi d'amnistie bi na topp suite boobu nañ dédommager victimes yi waaye nañu tijje enquête ci circulation d' armement illégaux yi fii ci réew mi à partir de sa moment yow mun nga sanctionner ah ña maanaam ña rayoon nit ñi ak ña blessé nit ñi comprend nga li ma ak a yomb armement dugg na ci réew mi gis na ay civil yor ay arme di tiire nit ñi xam nga ñooñu ñoo rey victime yi xam nga ñooñu ñoo blessé victime yi mais xam nga dem ne si am na du dëgg xam nga bi dem d'amnistie bi amee xam nga couvrir na dama bëgg nga déglu ma du ma jaaraat xam nga loi d'amnistie bi couvrir na acte ñu def ah léegi yow xam nga loi d'amnistie bi après def na ñooñu da nga leen dàmp léegi dàmp leen bu lever loi d'amnistie bi tëjil enquête ci ñan ñoo fi dugal arme ñan ñoo ko jënd ñan ñoo ko joxe ak ñan ñoo possédé woon arme yi da nga sanctionné ña rayoon fële ak ña <laughs> ak ña blessé woon di ji fële mooy mën nga régler problème mu. enquête loi d'amnistie amee kay. déedéet loi d'amnistie bi couvrir attention. non mais loi xam nga loi d'amnistie bi lan la couvrir. waaw bépp acte bu nit def ci manifestation yi. oui. loolu la couvrir. waaw waaye bépp état am na droit enquêter. noonu lépp li nga xamante ni wàllu. Eh, eh. manifestation ak loo xam ne si ni wàllum politique. la wax lépp lu ci jëm ci politique. lu ci loolu. maam armée question de sécurité national la. mais ana arme ana arme ah, ana arme foofu moo tax man la tu peux sanctionner sans pour autant jaarale ko fële da ngay tijji ñan ñoo fi dugal arme ci voie yu dul maam commande bu dul armée bi fi mu daan jaar. Mhm. ñan ñoo ko stocké ñan ñoo ko joxe tijjil foofu ah tijjil foofu enquête di nga duma ña newoon xola maanaam ña am ne si baal ñëpp da leen duma fële ci armée yi moo tax man la mën nga ko régler moom te du jur coow. bañ a jur coow moom da nga leen dumoon armement yi ci réew mi bu mais bu génnee loxo dab gémmi. Hmm? ah waaw. li wax ni c'est dangereux. waaw ah, waaw te lu ñu war a régler la rek pour ëllëg. ndax hmm. arme yooyu ñu ko yor lan moo ñu leer ni ëllëg activité politique du fi am ñu génn. ñu dugal ci ñu ra ñu raxaloo ci biir. moo tax man la tëjil dossier armement yi. Hmm. d' accord euh, euh, démission yi ah muy démission yi nga xamante ni Ousmane Sonko annoncé woon nañu ko annoncé woon na ko en tout cas bi ñu euh, ko tabbee. comme pour ñi nga xamante ni dañu nekk ah, ministre nekk maire. muy cumul yi nga xamante ni wax na leen un mois lañ leen mayoon moom ci boppam déjà gis ñu démission Birame Souleye Diop concerné na ko démissionné wul gis nañu Serigne Gueye Diop. moom maire de. moom euh, démissionné kan. kooku mooy bu fële. sang eh, euh, Sandiara démissionné na démissionné na waaw mais Ousmane Sonko démissionné gul Birame Souleye démissionné gul may mun a jéey mii ci Padoa moom tamit démissionné gul te un mois la ñu waxoon. un mois suba lay jeex ah. lay jeex. ministre bi nee na en tout cas ministre bi ci sax ci suba même Serigne Gueye Diop moom ngay ministre bi ci boppam nee na jotagul benn démission ministre des collectivités locales nee na benn démission euh, jëm ci côté ci ci maire yooyu ñuy wax. waaw man nag am na lu ma jaaxal foofu. man dama foogoon ni dañ ko def en douce quoi te kenn yéegu ko. kenn démissionné wul ministre bi wax na ko. amul lu ko mun a justifier nag. lan. amul lu ko mun a justifier seen bañ a ah man kay wax naa ko ci suba. waaye nag jarul doon waaye jarul doon wax nag. xaaral ma ñëw rek. kenn sexalul lem. le premier ministre Ousmane Sonko moo génn taxaw na poste électif yi yi yi ko nit ñu cumulé. Hmm. may nañ la un mois. Hmm. Ousmane toujours bi la waroon démission. si. moom. ci jour bi la waroon démissionné. lu tax defu ko xaw ma. ndax dafa am procédure yu ñu enclenché xamuma. ndax dafa am yu ñu nekk di régler xamuma. ndax dafa am lu ñu waroon régler ba pare ci état beeg yu kenn xamul xaw waaye dara mënut a justifier ñoom ñoom ñu ko wax. ah ku ko nit ñi ñoom defuñu. gor moom ca wax ja man bu ma gisee bu la damay naan bu la bu ma gisee jaune damay naan jaune lii nag bu ko Ousmane Sonko démissionné wu. Mm. looloo yëre ni mm. waaw. ah un mois la un mois la xonde xaaral ma wax la boo booy reniement dëgg-dëgg contrairement ak li ñu doon wax ci appel à candidature yi. Hmm. man dama foogoon mois la après lañ mën a un mois. la waxoon un mois la wax deux bu dee la te suba lay mat. Hmm. te démissionné wuñ ba fi ñu toll nii amul lu ko justifier vraiment. mais ce que. Euh, lu mu waroon a wax la déjà est-ce que du ah, erreur est-ce que du parce que tamit xam nga même bu fekkante ni loolu euh, dafa war a am dañu war a euh, créer benn loi boo xam ne si ni ñoom dañuy wax ni képp koo xam ne si ni fal nañ la ministre nommé nañ la ministre euh, sa poste maire bi nga amoon da koy da nga koy da ngay ñu mën ko encadrer sax ba nga xamante ni comme ministre moom poste nominatif la boo perte sa sa ministère bu la dàqee maanaam nga mën a jëlaat sa maire bi nga xamante dañ la dañ la fal comme ni ñu ko defaroon ci député yi loolu non xam nga tam loolu mooy danger bon man personnellement oui man personnellement man hmm. Ousmane Mm-hmm. man gëmuma problème de cumul. Mm-hmm. man man man sama avis bopp nag laay jox waxuma ne loolu la Ousmane Sonko ak ñi mu àndal war a def. Mm-hmm. man sama xalaat gëmuma ay cumul. particulièrement ci yenn poste yi man gëmuma ni député maire cumul la. ndax man kenn mënuma gëmloo nii am na ku gën a placé la maire ngir yóbbu problème mu gox bi ca assemblée. si. parce que bu ñu nee député maire de Kaolack. Mhm. mais kan moo gën a positionné maire Kaolack. pour xam mhm. problème mu Kaolack. Mhm. yóbbu ko assemblée. waaw. donc man loolu sama point de vue la mais ñoom comme que ñoo digg woon. non pas député maire mais doon ministre rek député maire am. bon man daal li ma jàpp mooy comme que ñoo ko digle woon daal nañ ko def ñoo ko nañ ko def point amul lay. am démissionné rek. non démissionné rek ñoo ko diggee nañ doy na waar de en tout cas ñi ngi xaar démission yi parce que tamit euh, un mois la ñu joxoon un mois yi moom daanaka euh, jeex na tey le 29 suba le 30 waaw dafa mel ni Ousmane daf na d'ici un mois ou deux de. d'ici un mois mois gi. non mu ko wax ci wolof bi mu wax sax benn weer la wax. waaw man nag dafa mel ni man ba muy wax ci nasaraan. may nañ leen un mois. man deux mois laa déggoon mais comme que yow loolu nga ma wax. Mm. teewagum ah, naa après dinañ ko xalaat man daal en tout cas bi ñu xëyee ñëpp un mois la. un laa déggoon. waaw parce que un mois la wax comme ça dinañ ci mën a démissionner organiser ci passation de service bi régler waale eh, ki nga xamante ni moom moo koy remplacer loolu pour man man dañ ko mën def ci un mois. léegi nag. Mhm. man dafa lu ma gëm. Hmm. mooy ak lu ñu annoncé annoncé annoncé rupture. Mhm. dafa am loo xam ne du rupture anarchie la après. Mhm. Ousmane Sonko c' est le premier ministre de la République du dëgg. Mhm. Bassirou Diomaye son excellence c' est le président de la République. si. au nom de soi-disant rupture. Mhm. ñu permettre nit mu leen traîner dans la boue. man dama gëm ni peu importe ñoom lu ñu diggee woon rupture. am na loo xam ne bu ko nit. defee yat dafa war a dal ci moom. si. mag mu xamante dañ koy yar. réew mi hmm. dafa mag yoo xamante ci espace public bi. Hmm. yoo xam ne bu ñu waxee ah. Hmm. nga xam ne ñii amuñu yar. si. kàddu yu ñàkk teggin la ñuy jëmee ci autorité réew mi démb kenn sañu koon ci Macky Sall. parce que boo ko waxee article quatre-vingt dal sa kaw. boo ko waxee dégg jël si la. Macky dégg na lu ne nag Cheikh Ousmane. waaye jàpp na ku ne it ngir dégg na lu ne. waaye jàpp na ku ne. Ah. deka ci boole yi dégg na lu ne jàpp na ku ne <laughs> ah, ah mooy yéen. nga ni Macky dégg na lu ne jàpp na ku ne. <laughs> Macky. waaw dégg na lu ne jàpp na ku ne. na ku ne de. waaw ah. wallaay. léegi nag c'est pas parce que da nga nit ñi rupture rek. Mm-hmm. da war a toog di dégg lu ne nit ñi di la wax lu nekk. Mm-hmm. man dama gëm ne am na ñoo xam ne yoon da leen war a jàpp. Hmm? waaw. comme que na ci Moustapha Diakhaté. ah bon yi ñàkk teggin yi muy jëmee ci autorité réew mi yoon da ko war a woo man loolu laa gëm. saa yi ci république la nekk newuñ ci ah. anarchie. Hmm. waaw man loolu laa gëm. d'accord. Euh, Cheikh li ñu ci lenn la liberté d'expression lenn la waaye cotteeku lenn la. réew ne waaw. mag bu réewee nag. dañ hmm. koy gën a réew. xale moo moom réew mais mag moomul réew. dafa kàddu yoo xam ne du teggin. nga hmm. jëmee ko ci ay autorité réew mi du teggin. Hmm. fii ku fi mës a wax ministre Macky Sall bëtam xonk na doo fanaan sa kër. Hmm. saa yëf yi yàggul kidnapping yi démb la duñ lay ne convocation. dañuy dajji sa buntu kër. man loolu laa gëm nañu def débat démocratique. respecter image yu nit ñi respecter àqu nit ñi respecter.